mbokk internet yi safoo setaan AGT news daleen ak jàmm ci xibaar professeur Ibou Sané nekk sociologue fële ci université Gaston Berger de Saint-Louis moom nag fare ci président Macky Sall nee na ñoñam boobu nga xam ne moo di ab am am na droit am troisième mandat li ko waral du leen lu dul nee na constitution ba la nga xam ne wax na ko mooy que ne nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs te loolee nga xam ne constitution bi wax na ko jotewul dara ak mandat bu njëkk bu président Macky Sall mel ni nag moom président Macky Sall mi ngi ñëw ci Sénégal yi ndànk-ndànk di leen ñamal li nga xam ne moom moo ñeel wàllum troisième mandat bi ñi nga xam ne nag ñoo fare ci opposition bi ñi ngi xam ne ne président Macky Sall leen dong moom moo ko ñor mooy bokk ci élection présidentielle yu atum 2024 moo waral ndànk-ndànk ñu koy sexal sénégalais yi ngir ñu miin yooyu le kàddu moo tax ñoom professeur Ibou Sani ñoom Cheikh Kanté ak ñeneen ak ñeneen daal di nekk di ci wax ngir sénégalais yi mën koo miis waaye lu ci mënti am sénégalais yëpp taxaw nañ temm fas yéene faire face au président Macky Sall bu fekkente ne daa nar li nga xam ni moo di troisième mandat ndax fii ci Sénégal dañ ko fiy tere te président Macky Sall sénégalais yëpp pare ngir opposé wu contre moom ndax nag Sénégal nekkul réew moo xam ni. ku mu neex def fi lu la neex wala nga bind sa ay teg teg ko te heure bu la neex changé ko ndax yëpp sénégalais yi waaye loole nekkut loo xam ni dina jàllati ndax sénégalais yi am nañ conscience ci li nga xam ni mooy xew ci réew mi ndax yeewu nañ xam nañ fi ñuy teg seen tànk te amut lenn loo xam ni président Macky Sall jamono ji mën na koo def ngir daal di leen ay convaincre ndax sénégalais yi ñoo sonn ci moom tàyyi ci moom te ba noppi itam nguuram gi nga xam ne ay jafe-jafe dong la jural sénégalais yi moo tax ñu bëgg ko changer soppi ko ngir indi alternance ci réew mi renaissance mën a am ci xolu sénégalais yi yaakaar yi mën a tekkiwaat ngir ñu mën a xam Sénégal suñu pétrole ak suñu gaz gile nan lañ koy exploiter sénégalais yëpp mën a dund noflaay jàmm ak salaam mën a am ci réew mi bu ko defee naataange ñu koy gis ci réew mi yëpp. mbokki internet yi safoo seetaan AGT news a leen ci suñu chaîne saa su ne ngeen di amee xibaar yu wér te wóor